waa Fabel ni ñu waxee woon te ci rubrique royuwaay ñu war a mhm. waxtaanee Cheikh Amadou ah, donc mhm. euh, di euh, ñu koy woowee sax le shérif du Nioro euh, moom la ñuy waxtaanee ak ki nga xamante ne mhm. mooy suñu invité di Mouhamed Salif Ba Mouhamed ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay soxna Fatou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. Eh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu eh, spectateur yi ñoo xam ne dañoo seetaan eh, Walf TV. Mhm. fu ñu nekk ci àddina bi. ñu ngi leen di ziyaara bu baax. di ñaanal ay waa suñu mbokk suñu xarit di Sidi Lamine Niass. waa yàlla yërëm ko fu mu nekk. Eh, di ñaanal nekk fii yàlla na leen yàlla jàppale ci liggéey bi eh, kon eh, ni nga ko waxee incha allahu aywa suñu waxtaan tey ci góor ga yàlla boobu la bëgg waxtaan tuuti mm-hmm. mooy Cheikhna Ahmad xamahullah bu ñu ko mënoon xamal mooy kan mooy Cheikh Ahmad Xamadullah Cheikhna Ahmad mu ngi tudd aywa Ahmadu bun Muhammadu bun Sayidina Umar mu ngi gane si àddina ci bopp eh, li ñu toog eh, quatorzième siècle bi ci dëkk bi tudd Kamba Sakho mhm. ci Mali papam di Mouhamad bun Seydina Omar yaayam di Aïchatou Diallo eh, ginnaaw loolu papam jële ko foofu ñuy ñëwaat Nioro Dakar foofu parce que la ñu njëkkoon nekk voilà boobu ci ñëpp ci maamam Seydina mhm. Omar moo tase woon ak Cheikh Omarul Fouti mhm. jóge ci chit mhm. ànd uh, ay chérif yu bari ñoo nekk ci ak moom ci di jihaad ginnaaw loolu ñu toog ci biir uh, uh, Mali moom foofu la la juddoo foofu la yaroo ba yàlla may ko mu tase ak góor yàlla boo xam ni mu ngi tudd Cheikh Sidi Mouhamad al kooku jóge Algérie ci beneen euh, ku baax ku tudd Cheikh Si Tahar Bouteba at-Tilmisani kooku nekkoon taalib bi njëkk ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bu mu jot mbiram mi jox ko mbir mi joxaale ko secret boo xam ni mu ne na nga wóor borom Cheikh Si Mahamad Axdar rek moo ko gis boo jox ko secret bi jokkoo silsila bi bu jógee ci Cheikh na Ahmad Tijaan radiyallahu anhu kooku moo nekkoon Cheikh na Ahmad rahimahullah voilà ñu déporté ko ci 19 juin ci weeru juin bi. waaw mooy mooy euh, dix neuf juin mooy dix neuf juin mille neuf cent quarante et un uh-huh. ci la ñu ko jë mujj jël. Uh-huh. waaye njëkkoon nañu ko jël. njëkkoon nañu ko jël ban année la njëkkoon nañu ko mille neuf cent vingt cinq. vingt cinq lu tax. 1925 la ñu ko jëloon. lu tax ñu jëkkoon. Eh, lu tax yàlla la ñuy eh, rek. Mhm. xam ngeen nitu yàlla moom. Mhm. musul d'accord ak nitu ñi bon yi surtout colonial yi. Mhm. musul ñu d'accord ak ñoom. ndax ñoom am na lu ñu bëgg. am na lu bëgg doxal. ci wàllu diine bi ak ci wàllu seen mode vie bi nga xam ni moom lañu bëgg imposer ñun. jullit yi ñun africain yi moo tax ñu baax ñëpp eh, dañu leen bañoon ci ci ci wàllu ñuy duñu d'accord ak moom duñu collaborer ak moom moom it ñu bokk ci ñooñu musul nangu collaborer ak tubaab yi fenn loolu moo nekkoon seen diggante problème ñu ne na ko am na ay sëriñ yoo xam ne comme yow ay sëriñ lañu ñu ngi collaborer ak ñun yow nanguloo collaborer ak ñun du fenn ñu déporté ko ban dëkk ñu déporté ko mën dëkk ñu déporté ko bu njëkk bi. waaw dañu ko jëlee Nioro. Mhm. ñu andi ko Bamako. mu def foofu ñaari weer. Mhm. ñu jëlee ko foofu àndi ko Saint-Louis mu def foofu juróom-ñaari weer. Mhm. ñu jëlee ko foofu yóbbu ko mu daddara ci Murtani. mu def foofu ñeenti at yoo ak topp. ñu jëlaat ko foofu yóbbu ko Côte d'Ivoire mu def foofu juróomi at lépp mu nekk dix an yoo xam ni. ñu ngi koy dem di di ñu di ko tëj. kon gannaaw sëñ Touba mu ñu déporté woon Gabon euh, Cheikh Amadou Lamine. voilà bokk na ci nitu diine yoo jamono bi nga xam ne maanaam mm-hmm. Serigne Touba. Euh, radiyallahu anhu ñu mu ngi jaaree. ci mm-hmm. jamono yooyu la ñu ko jëlee moom ko andi ko foofu am na sax loo xam ne dox na seen diggante. Mm-hmm. gisewuñu waaye doomu Serigne Touba dafa yónni doomam mu dem ba fekki ko seen lii. mu am li xam kii na seen diggante. voilà. bu am bañkat ba ba ba bu mujje mhm. ah, ak ñoom te du ma sa d'accord ak ñoom parce que moom xam ne ñoom lu ñu dox ak lu ñu soxla ak lu ñu bëgg li ñu bëgg lor ci wàllu diine bi moo tax nangul eh, dégg ak ñoom mhm. eh, moo tax nag ñu xeex ko ñu xeex ko nag bàyyi ci ba mujj bi mhm. mooy bi nga xam ne ñibbi ñibbi bàyyi nañu ko mu ñibbi si en 1935 mu nekk fii 35 ba 41 ñu jëlaat ko boobu yet nag lañu ñu ko yóbbu ñu jël ko Dakar euh, Nioro direct andi ko Dakar ñu jële ko fii ci Dakar yóbbu ko Algérie jële ko Algérie yóbbu ko France foofu la mujjee lañ mujj keeku. macha allah ginnaaw boobaat léegi nag lan lañ def ci wàllu jaar-jaaram wala ay descendance euh, descendant ay ah, descendant mu ngi foofu mais doomam mu ngi foofu tey moo toog ci ci ci ci ci. ci xalifa bi ci xalifa bi mooy Mouhamed bun Mouhamed bun Seydina Omar. mi ngi fan. Mouhamed bun si Mouhamed Mouhamed bun Cheikh na. fan la nekk. mu ngi Nioro. Nioro moo nekk Nioro Nioro mooy eh, eh, këram. Mhm. foofu mooy mooy base bi. d'accord eh, ginnaaw lu rek taalibe yi ñu ngi tasaaru fu yi ñu ngi fu ne mm. fii am nañu fii ñoo xam ne ay kilif ñoo nekk fii maam ak seen baay ñoo nekkoon fii ay muqaddam mm-hmm. yow ñoo nekk fii zaay bi mag bi nga xam ne moo nekk ci Rebos mm-hmm. foofu la ñu defee sax cérémonie bi nga xam ne moom la ñu def le 19 juin eh, bi ëllëg incha allah yow noonu la noonu la noonu la demee mm-hmm. eh, tubaab yi ba ñu ko wut euh, euh, jàkkaarloo fii ak gouverneur bi kooku dafa ko wax ne dinañu far sa biir. dootul am d'accord ñu ngi ñu ngi ñu ngi bëgg a laajte ban ñooro la fan. ñooro bu Sahel. ñooro bu Sahel Eh, bu Mali. bu Mali ah d'accord parce que ñun ñu ngi doon jàpp ne. Nioro ah, fii Nioro type non. Nioro Sahel du la mer foofu la nekk foofu la nekk foofu mooy. xalif bi ah xalif bi ah. mi ngi foofu ci bi nekk Mali d'accord. Mhm. alhamdulilah xamawiya di di xamante ne mooy tarixa bi mu bu mu waaw xamaw yi mooy mooy diñ ko askane ci moom rek. Mm-hmm. waaye tariqa bi tijaaniya la. tijaaniya la amul benn yokkul. Mm-hmm. wàññiwul. Mm-hmm. moom tijaaniya la waaye silsila bi. fi ma jaar. ci moom laa li après ñu nag taalibe yi. ñu jokkoo ci moom. ñu tuddee leen ay xamawi yi. waaye du ñu du beneen tariqa boo xam bu bees la. comme ni ñu tuddee ñaseen. ñu ñu tuddee leen gunaas ak lu demoon noonu rek la mel. waaye moom tijaan yi cent pour te liñ koy déporté à chaque fois day bañ yenn yi nga xamante ne autorité coloniale yi dañ ko doon def. loolu rek à chaque fois du mës a nangu te def nañ ko defati ko. voilà loolu rek loolu. lan lañ ci mën a jàpp faatu Diouf. voilà ma ma wekku ci sa laaj boobu rek lan lañ ci mën a jàpp ci histoire loo xamante ne euh, bañoon na ko. ñu jël ko yóbbu. waaw ñoom euh, saa yu ñu ko woowee dañu nag dañu ko naan daal ñun nangoo collaborer ak ñun. collaborer ci ban fànn. ci ban ci fànn maanaam ñoom yeneen eh, kilif yoo xam ne dañu ñëw ci ñoom. di leen nemmeekoo di leen woon seen seen seen i soxla saa yu jafe-jafe yu am ñu ñëw ci ñoom pour laajee leen ko. ñoom tubaab yi danañu jël seeni alal. ak yu demee noonu ak seen i médaille di may yeneen eh, yenn kilifa yi. moom mosu ci nangu nangu dara. li mu bañoon loolu. médailles yeeg yooyu. mais musul nangu seen médaille. Mm. musul nangu seen mus nañu jël fi dem fii gouverneur bi jóge fi da mm-hmm. jël fii ay délégation. ñu ñëw ba fekki ko ñooro mooy jabar boobu ñu dellu see foofu. Mm-hmm. ñu waxtaan ak moom ñu ne léegi nag dañuy jël li ñu jox la ko nga dimbali ko mu ne soxla ma ko. mu ne boo ko soxlu nga jox ko say taalibe mu ne sama taalibe soxluñu ko waaw dem leen ñu ngi ñoon su fekkee ne nañu ko ngeen joxe leen waaye ma soxla moo léegi nag ñu ne ko kooku yow doo nangu jël jël suñu xaalis doo nangu jël suñu médaille doo nangu collaborer ak ñun lu bare dana yóbbu foo foo xam ni dootoo gis ay waa Afrique dinañu faral sa mbir ba mu jeex voilà lii mooy seen diggante ak diggante ak tubaab yi. d'accord mu mel ni autorité coloniale yi ay nitu diine yu bari époque boobu noonu lañ doon def. ñu doon def parce que à chaque fois bari nañu ñu doon def. bari nañ ñu ko def euh, loolu nag moom sunna sunna la yàlla subhaanahu wa taala. Mhm. ak jaamu yàlla yi. fa mabtila gayrul waliyi kal wali. Mhm. wa mabtila waliyu misla al mursali. Mhm. kama al xadiisu anhumu arjaa li qawlihi ashaddukum balaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ashaddukum balaan al amsalu thumma al ki nga xam ni moo gën a maanaam bari maanaam nattu mooy ki nga xam ne ku gën a mooy ci diinam ku gën a eh, am kawe martaba ci diinam moo ci gën a bari nattu mm-hmm. moo tax nag moom it mu bokk ci ñooñu li ma ngoyee ci diinam bañ ci bu rax yeneen bañ ci boole yeneen moo tax ñoom it ñu fitnaal ko. sëñ Mouhamed Salif est-ce que loolu du jihaad mën nañoo wax ne forme jihaad la. waaye forme jihaad waaye jihaad boo xam ni musul yëkkati benn eh, xeex maanaam xewkaay mu jëmale ko ci tu ci tubaab yi musu ko def musul musu ko digle. am na benn xeex boo xam ne jihaad pacifique la mën nañoo wax jihaadu mhm. nafs mhm. moom la doon def maanaam musul nangu naa loolu nag moo ñoom loolu la ñu gën a bañ rek moo moo gën a moo gën a fort moo am na efficacité boo xam ni bokkul ak jihaad bu bu bu euh, jël jël ngannaay ngannaay bi mhm. ngannaay bi moom boo xeexee ñoom si ak ngannaay suñu la euh, gañee rek jeex na waaye bale moom pour ñu jeg gañe la foofu lu jafe la moo tax nag moom boor boobu la doon xeex ak ñoom bëggoon nañu ko wax ñu ci histoire quand même bu dee benn euh, ñu xam lan ban nattu la ko tubaab bi mës a teg wala ban ban ban ban euh, kii la ko tubaab bi mës a teg boo xamante ne ni. waaw waaw ci histoire. ci histoire pour ñu xam tey bu ñu waxee exemple Serigne Touba suñu maam. Mm. dañ dox naan euh, biñ ko bëggee signaloo. Mm. Euh, dafa bañ. Mm. xëy na looloo tax ñu am yuñ ko teg. waaye moom lan la def ci histoire euh, ñu ñu mën a xam. moom maanaam ci wàllu boppam moom. histoire am benn histoire rek la def mooy nangul de collab rek ak ñoom léegi nag ñoom jël nañu ko jël nañu ko kiram yóbbu ko yóbbu ko ci comme ni ma ko la waxee ne de teg nañu ko mu derdere mu nekk foofu ñett ñeenti at mm-hmm. ginnaaw loolu jël ko yóbbu ko Anjoppe ci Côte d'Ivoire ñu tëj ko foofu foofu dañu koy kaso fii Dakar tëj nañu ko fii kaso waaye fii moom pour dañ ko tëj ñun pour jàll mm-hmm. ñu dugal ko bateau bi yóbbu ko Côte d'Ivoire bu ñu ko demee Côte d'Ivoire tëj nañu ko at ak genn walla ci ci biir selil ginnaaw loolu euh, bu euh, après dix bi ate jotee mhm. ñu bay ko mu ñibbi si këram mhm. waaye bu toog ñu euh, juróomi at ci biir yooyu ay doomam mhm. ay doomam dañu ñi doon collaborer ak tubaab yi ci naar yi fexe ba am histoire seen diggante foofu mooy benn giir bu tudd Tunwaasib ak giir bu tudd Laxlaal te ñu laay ñu àndoon ak doomam bu tuddoo baaba moom mooy taawam ak beneen doomam bu tudd Chérif Ahmed eh, Cheikh Sid eh, Cheikh Ahmed maanaam ñaari ñooñu ñoo bokkoon ak ñooñu xeex jog seen diggante ñu ñëw jàpp baaba bu ak ñaari doomam yi ak taalibe yi nekkoon foofu yëpp ñu yëbbu leen eh, yëlimaan ñu fusillé leen ñu mm-hmm. rey leen foofu mm. maanaam rey nañu foofu lu ëpp ñeenti téeméer taalibe ba hmm? ñëw après après 19 bi ñu jël këram toj kër gi yëpp mab ak jël kii bi ban bi ak yépp dem sànni ko mu bay ko mu nekk benn comme ça dër jël taalibe yu mag yëpp leen ay kasu ay songo ay waa kii daal ak fu ne ñu tasaare leen ci biir euh, Afrique bi mm-hmm. ñu tey leen foofu maanaam ëpp nañu ñeenti junni ñoo xam ni dee nañ ci ci biir ci biir loolu dundoon na ñaata at dundoon na ñaata at moom bu mu jógee fii aywa am na mu ngi am euh, juróomi benn fukki at ci yéen anam la génne àddina ah, loolu ci loxo tubaab yi la ci loxo tubaab yi la loxo. ci loxo tubaab yi loolu la ñu wax ni génn nañ àddina ñun ba léegi amaguñu firnde bu wéer. loo xam ne génn na àddina. ñoom joxuñ preuve ah, wax ne la ñii la kii dem ba jamono. Mhm. ñu ne fi mu ne moom génn na àddina. boobu dañ woon boobu. ngi ko ñu ngi ko tëj foofu. ci ah, France ah jamono ko. ñu ngi ko ñu ngi fan lañ ko denc. joxuñ ko am na benn pal bu wax ne moo li mhm. ne am na foofu benn euh, xabri ñu ne moom moom moo nekk foofu ba léegi nag gisuñu loo xam ni lu ñu bind lu leer loo xam ni lu lu aju si wàllu woowu ala kulli xaal. te réclamé woo leen ci dara famille bi daal suñu waxee dee dee na mën nañu jàppale. famille bi après réclamé woon kenn waxu ci dara. non famille bi réclamé ñoom daal tubaab yi bi ñu demee ba après eh, après indépendant. ñëw nañu. Mm-hmm. ñu ne léegi dañu jéggulu parce que dañu ko jëloon ci ay ay erreur. Mm-hmm. ay ay rapport yu yu yu yu yu dul dégg ñu dem yëbbu ko léegi bagage bu ñu yëbbu woon ñu andi ci ñu delluwaat ci tuuti mooy mooy téere yi ak yu demee noonu waaye ba léegi gisuñu kurusam gisuñu saralam gisuñu sa ciyam ak lu du yére du mu tubaab du sàndi yooyu yëpp a ngi ci ñoom boo leen ko réclamé ñu delloo léegi nag ay waa hmm. loolu la ñu andi tuuti ñu ne léegi nag di dañu bëgg tabaxaat tabaxaat kër gi hmm. doomam bi toogoon jamono boobu mu nekk Chérif Ahmed mu ne ko leen déedéet ñun kay dafa leen jox leen kayit rek bu wone ni jot nañu suñu kër. Mhm. waaye tabax ak yooyu noonu mën nañu tabax suñu bopp. ñu delloo leen euh, seen seen i kër ak seen terrain. Mhm. taalibe yi tabaxoo tabaxal seen bopp. Mm-hmm. waaye ba léegi amul xabru boo xamante ni dañ fay dem di ziar. pour wax wax ne fii la tëdd foofu ci Moléson ma ne ma ne benn dëkk bu tudd Moléson. d'accord am nañ kii xabru bu nekk foofu ñu bind ci turam ñu ne moom moo nekk foofu. ñu ne moo nekk foofu. Mm. <laughs> d'accord mm. d'accord alors Fatou Diouf. Mm-hmm. ñu ngi ñuy wax waxtu yi jeex na tàkk. Mm-hmm. <coughs> <coughs> jaajëfal nañ la bu baax.